Euh, comme saa su ne ni ñuy def ak capitaine yi rek noonu la ñuy def moom waaye ma nga dem ci ci cimmikaay ba suñu papa katee ngi noonu gis nga gars yi waa jaa ngi noonu kii moom xàmmee ngeen ko maaraawu Serigne Ndiaye bi fu Serigne Ndiaye di dem ma nga fa ànd ak moom waaw cimmikaay bi dañ koy xaar mu yegg si jege si suñu papa Moustapha Guèye de yéen gis ngeen ko laasee Tigre de Fass moom it ñëw la ci compétition bi vraiment Dakar ñëw na wane seen bopp ci wàllub làmb Dakar ñëw nañ wane seen bopp ci compétition bi Dakar ñëw nañ fañ doon xaaree raison de Dakar ñu bokkoon ci favori yi wane nañ mbër maa ngi lay nuyu de. ñu nga Père Tafa cey perte mu ko cey père père boo de mbër maa ngi lay nuyu. sëñ nangu ta dañ koy nangu Adama kay ñu xool père Moustapha Gueye mbokki arbitre bi sifflé na ndeysaan dox ci diggante Ziguinchor ak Dakar Ziguinchor daw na jëli Dakar bañ na moom Serigne Ndiaye de bu Dakar mooy capitaine bi xale bi daw na jëli ko bañ na xamul xale bi génn nañ saako yi ma nga koy xool ndeysaan Dakar Ziguinchor Ziguinchor génn na arbi bi sifle waat na xale bi bañ na daa fas yéene bëre Dakar ak Ziguinchor ndeysaan daw na jëli ko plaqué daanu na wala déet daanu na nee na couronne bi bi doole la Serigne Ndiaye de nee na ee coriace yëf bi de nee na Doudou Sané nee na maay <laughs> ah, xamuñu ci dara waaye bu arbitre bi sifflee ñu xam ne lépp dëgg la Coriace Serigne Ndiaye de capitaine ndeysaan ñoom ñaar dañuy laale far force ndax dañoo daje final force dinañ laale bëgg a bëre bañ bëre bëre di ngeen bëre ndeysaan njëkk a yuuxu ak Dakar Boy Faye Serigne Ndiaye 2 Serigne Ndiaye 2 Dakar capitaine Dakar Boy Faye capitaine Diourbel mbokk yi arbitre nañ Boy Faye moo wan ginnaaw ceinture rouge Serigne Ndiaye 2 Fass centre bleu dina yomb wala déet Boy Faye daw na jëli ko Serigne Ndiaye bañ na bal na mbot Boy fay mbot na Serigne Ndiaye Boy Faye Boy bañ na avertissement Boy Faye Serigne Ndiaye 2 Boy Faye ñoom ñaar ñu ngi noonu jàppante nañu tegante nañu bopp Boy Faye jël na boppam teg ko ci bopp Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye daw na sol ko ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk raison bi nga indi yaay seen capitaine Serigne Ndiaye 2 Boy Faye daaw moo nekkoon champion chef de jëlee ko jurbel ndaysaan sa Ndiaye plaqué na plaqué na ko Boy Faye bañ na wër ndombo wër ndombo Boy Faye Serigne daan na Serigne Ndiaye deux daan na Boy fay daan na ko Serigne Ndiaye daan na Boy Faye ndaysaan xool ko Serigne Ndiaye xool ko Adama ma ngay dem xool ko Doudou Sané la soxla di ngeen laale ku daal junju sa morom ku daan ne ko kaay. mu noonu Dakar ceinture bleue. ndeysaan troisième place bi. Liu Thior. ndeysaan plateau B. dox ci diggante demi-finale Serigne Ndiaye 2. Fass Rouge. Ablaye Ndiaye Joal. Serigne Ndiaye daw na jëli ko Ablaye Ndiaye plaqué na ko daan na wala déet Serigne Ndiaye 2 daan na Ablaye Ndiaye Serigne wala déet nee na ko taxawal na le avertissement Serigne Ndiaye am na benn avertissement nee ko taxawal arbitre bi siflé waat na Serigne Ndiaye 2 Ablaye Ndiaye jël amul Ablaye Ndiaye daw na plaqué na doole doxul jàmm Serigne Ndiaye waraat na ko domba daan na ko Serigne daan na Ablaye Ndiaye daan na ko ndeysaan ñu ngi ñoom ñaar fair play Serigne Ndiaye 2 bu faas Ablaye Ndiaye doomu Robert ndaysaan gis naa ko xoolal làmb mun lii xoolal sama papa kati moo daan indi Yaxya Joob Yékini Yaxya Joob Robert rek ko indi kati tey moo indi Serigne Ndiaye deux mu fas yéene laaleeg doomu Robert làmb gi loolu yëpp compétition la ba Babacar loolu yëpp làmb la sport la warul tàqale daa war a boole Serigne Ndiaye 2 jiital tànk di joor Ablaye jiital tànk di joor ndaysaan jàll leen arbitre bi nee na sifflé waat na Serigne Ndiaye 2 Ablaye Ndiaye Robert dañuy kontaagaat ñoom ñaar fu muy mujj Ablaye Ndiaye Serigne Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye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 ndeysaan luy waaj a xeeñ Serigne Ndiaye bët ba neewi de lan la ah mbaadu dañoo mbëkkante wala luqi da cee am ñu ngay lewaatoo Ablaye Ndiaye Serigne Ndiaye Ablaye Ndiaye Serigne Ndiaye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 Serigne Ndiaye da koy tegal seize wala déet daan na ko daanaat na ko daanaat na ko Serigne Ndiaye daan na Ablaye Ndiaye xolal kati ñëw na da koy yëkkati sa doom la yëkkati ko kati lamba leen boole ndeysaan jugal ndeysaan yëkkati na ko yëkkati na ko yëkkati na ko yëkkati na ko ndeysaan xoolal Serigne Ndiaye ni ko def Doudou Sané du ko jox loxo déedéet làmb la ndeysaan du ko nangu nangu na ndeysaan jox na ko loxo laaj na ay siisam mbokk yi arbitre bi na Serigne Ndiaye 2 ndeysaan Dakar Doudou Sané Fatick Serigne Ndiaye 2 joor Doudou Sané tànk joor teq na ko tël na ko tël Serigne Ndiaye bañ na ñoom ñaar padaat na ko doole la combat doole la fàqat na ko danañu bëre ndeysaan Doudou Sané waay doole waay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 Dakar Serigne Ndiaye 2 Dakar ndeysaan ñoom ñaar a ngi di diggante Fatick ak Dakar la waaye lii du Fatick du Dakar bii moom gañ yóbbul sa bopp la moom gañ yóbbul sa bopp moo tax du caaxaan ku ne day téye boppam ku day téye moroomam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 daja waateeg Doudou Sané daw na jëli ko Serigne Ndiaye bañ na Doudou Sané Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye ba jeex na Serigne Ndiaye na nee na lan six fois Serigne Ndiaye nee na six suba ma duma waat ko Serigne Ndiaye deux ko six fois nee na jox naa leen ba suba nee na jox naa leen rendez ba suba